nee na sëriñam la ko jaral la ko yàlla jaral jaral ko benn jaam jaam nag boo ko waxee dafa ëmb ñu bari dafa ëmb yonente yi ëmb na malaaka yi ëmb na saxaabatul kiraam ëmb na taabicuuni ëmb na mboole mbooleemi salafu saalix ëmm na mboolee mi nit ñu baax ñi nee na jaam yooyu yépp sëriñam la ko yàlla jaral jaral ko ñooñu loolu nag wax ji dafa làmboo tuutil mboolee mi jaam yooyu ñu tudd jël sëriñam teg ko seeni kaw moo tax wax yi wax yu jara def ay leeral la jara def ay taxaw seen am na wax joo xam ne wax naa ko ba noppi mooy sëriñ Tuubaa la ko boroom jaral mosu koo jaral benn jaam man maa ko wax wax naa ko nag ba noppi te it duma ci dellu gannaaw lu ci fekk rek na ma ci fekk waaye sëriñ la ko boroom jaral mosu koo jaral benn jaam ah loolu wax ju rëy la wax ju rëy la waaye sëriñ Tuubaa jaral na ma ko lu njëkk mooy faaw ñu xam benn mbir mooy sëriñam boobu am nañu ko gën am nañu ko gën loolu yàlla moo ko wax ci alquran yonent bi salaa sallam wax ko ci xadis sëriñam boobu ko gën mooy yonente yi yàlla bu mu tuddee yonente yépp dafa ne wa kullan faddalna ala alaalamin mboolem yi ñu tuddlee ñoo gën ci mbindaafoon yi ñoo gën ci ñëpp ñoo gën ci nit ak jinne tayib te sëriñam di yonante comme yonante yi mboolem yonante yi ñoo gën sëriñam ñaareel mooy yonante bi sallallahu alayhi moom moo gën sëriñam ndax yonante bi sallallahu alayhi wa yàlla moo ko wax ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow ya gën ñëpp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci xadis ne ana sayyidu waladi aadam maay sangu doomu aadama yi ni ko doon bo boobu malaaka yi ñoo ko gën ngëneel bu ko malaaka yi gën mooy dafa bokk ci ponk imaan gëm malaaka yi dafa bokk ci ponk imaan gëm malaaka yi comme sëriñam boobu dafa bokk ci lu mu war a gëm mooy gëm malaaka yi comme malaaka yi ñoo gën sëriñam ñaareel bi mooy malaaka yi duñu bàkkaar lu yàlla digle moom la ñuy def lu mu tere moom la ñuy bàyyi laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna ma yumaruun malaaka yi duñu mooy yàlla te lu mu digle rek lañuy def te laa shakka ni mbindeef bu dul mooy yàlla moo gën mbindeef bi nga xam ne day mooy yàlla tayib comme ni ko yenn boroom xam-xam yi nuñ ko waxee comme loolu benn muqaddima sëriñam saxaaba yi ñoo ko gën mooy ñi nga xam ni yonente bi moo leen jàngal ñu jàngee ci suufu keppaaru yonente bi ñu dajak yonente bi gëm ko faatu ci lislaam ñoo ko gën yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na xayru nnaasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum ñu gën ci jullit ñi mooy sama génération mooy ñi ma dundal saxaabatul kiram abu bakar umar usman ali talha zubair abu ubair abdurahman ibnu awf saad ibnu abi waqas said ibnu zayd ñii ñoo gën sëriñam ak mboolee mi saxaaba yi ak mbooleemi saxaaba yu des ñoo gën sëriñam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne xayru naasi qarni taabi'uun yi ñoo gën sëriñam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xayru naasi qarni thumma alladhina yalunahum ñu gën ci jullit ñi moom mooy saxaaba yi topp ña topp mooy taabi'uun yi ña jàngal ñoo gën sëriñam ñoom Saïd ibn Jubayr ñoom Ikrima ñoom Mujahid ñoom Saïd ibn Musayyib ñoom Ataa ñoo ñoo gën sëriñam ak mboolem mi taabi woon yi saxaaba yi jàngal ñi nga xam ne daja nañ ak saxaaba gëm ko faatu ci lislaam ñoo gën sëriñam ndax yonente bi moo ne summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ña taabi woon yi jàngal maanaam nongo saxaaba yi ñañu jàngal ñañu dajal ñu nekk ay jullit ñoo gën sëriñam ndax yonente bi salaa sallam moo ne summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum mu namm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy eh, ñu topp ci taabi woon yi tayib comme lii benn muqaddima la pour lu ñuy wax ci kanam mën a leer comme laa chaque ni ñii ñoo gën sëriñam comme ñii ñoo ko gën ca yàlla comme ñii ñoo gën sëriñam ca yàlla euh, ñaareel bi wax mu wax ni sëriñam lu ko yàlla jaral jaralu ko benn mbindeef loolu tamit lu koy weddi moom mooy alquran ak sunna ak li nga xam ne moom mooy moom mooy waaqi bu dee ci yonente ñaata yonente yoo xamante ni ñoo dund ay jafe-jafe yàlla jaral leen ko ba ñenn ñi dalena ray a ku ci melni yahya zakariya ak shuayya shuayya yalla wax nako ci alquran afa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun bu fekke ab yonente dikkal na len joge ci yalla ci lo xam wut ak sen banexu bakkan ngeen wedd len wala ngeen ray len comme yonente yañu ray ngir yalla la len la len la len yalla jaral jaralu ko sëriñam ndax sëriñam amul ben yoon fu ñu bind ni jàmbaarloo na xeex na wala dóorante na te ñee dañoo tuur seen deret ndax yàlla yusuf alayhi salaam dañ ko tëj ndax lan ndax yàlla moo ko jaral bëgg mucc ci fitna yi jigéen bëgg a jaamu yàlla bañ mooy yàlla moo tax mu ñaan kaso mu ñaan ñu tëj ko kaso ñu tëj ko ay ñaata ay ati ati at at yu ëpp yaakaar naa yi ñu tëj sëriñam wala ñuy jàpp sëriñam comme mu ngi noonu su aybu yàlla da koo nattu yàlla moo ko jaral mu am nattu feebar boo xam ne feebar yi at yi at la yoo xam ni dem nañ euh, wala euh, ayub ayub ayub ay feebaru ati at yoo xamante ni mu dund métit dund naqar yunus yàlla moo taxoon mu daal di jëmb daal di koy wan mu daal di nekk ci biiru jëmb ay ati ati ati at comme bu ñu tudd ay misaal ci ay yonente yoo xamante ni laleen leen yàlla jaral moo raw foofu la ko sëriñam jaral loolu du jeex Ibrahim yàlla moo ko jaral mu ñëw fekk ab buur bu am doole boo xam ne kenn sañu fa wax leneen lu wuuteeg yàlla mu ñëw daal di moxoñe yàlla yañ daan jaamu yépp jël jaasi bi wékk ci kaw yàlla bu mag bi ñu laaj ko mu ne laaj leen ko laaj leen bu fekkee dañuy wax ñu jël ko sànni ko ci sawara ndimbalu yàlla moom moo ko fekk foofu Ibrahim loolu yàlla moo ko jaral. Moussa yàlla moo ko jaral mu jàmbaarloog Firawna bi nga xamante ni pouvoir am amul kenn ku ko mus a am ci àdduna mu ñamee jàmbaarloo ak Firawna wax Firawna loo xam ne kenn sañu koo wax Firawna Firawna mu ëpp doole foofu tubaab yi tax ñu jël ñu jël sëriñ bi di ko teg ci mboole mi mindaafool yi Firawna pouvoir mu amoon tubaab bi am ko woon tubaab bi jàmbaarloo sëriñ bi am ko Firawna daal di Moussa daal di jàmbaarloo ki nga xamante ni moom mooy moom mooy Firawna yonent bi sallallahu alayhi yàlla moom moo tax moo ko jaraloon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee Makka mbedd nga xam ne fa daan jaar ñoom ummu jamil ak abu lahab di fa sànni ay dëj di fa sànni luy lore mu koy jam di ko gaañ yàlla moo ko jaraloon mu dem taif ñu boole ko ay dof aki xale ñu koy sànni ay xeer ba dereetam tuuru yàlla moo ko jaraloon xare uxud ñu damm bëñam toj ay oomam yàlla moo ko jaraloon yonent bi salaa salaam yàlla moo ko jaraloon mu bàyyi dëkk bi nga xamante ni fa la xam fa la miin fa la bëgg mu génn fa gàddaay ko ak la fa nekk dem Madina Aboubacar Siddiq ba mu duggee ci lislaam saxaaba yi yàlla moo ko jaraloon mu taxaw dem ci kaaba gi di woote ñu dóor ba mu xam loolu riwaaya dañ koy nettali Ibnu yàlla moo ko jaraloon Abu Jahl def ko lu koy def daal dagg ay noppam Ammaar ibnu Yaasir yàlla moo ko jaraloon mu dugg ci lislaam gëm ko ñu ne ko weddil mu bañ mu taxaw ñu tëral papaam ak yaayam rey leen ci kanamam muy xool yàlla moo ko jaraloon loolu xabaat bu nu arat ab tëgg la yàlla moo ko jaraloon ñu fekk ko fa muy tëgg mu gëm yàlla dëgër ci ñu ne ko weddil mu bañ ñu fekk ko fa muy tëgg mu yor ab bool bu tàng di ko tëgg bu tàng jër xonk ci ak sawar ñu jël ko daal di koy teg ci lexam ba derul lex bi daal di topp bool bi kooku yàlla moo ko jaraloon loolu bilal ibnu rabax yàlla moo ko jaraloon ci naaj bu tàng jër ñëpp xam nañu màkka naaj ba nu mu tàngee ñu koy dëri di ko diri ci dëru màkka yi di ko diri ci suufu màkk si ak nu mu kiiwee ak nu mu tàngee yaram bi di xolleeku ñu boole ko xale yi ñu diri ci mbedd mi jël xeeru màkk bu diis bu tàng jër teg ko ci kawam naan ko weddil mu naan ahadun ahad kooku yàlla moo ko jaraloon waaw ndax sëriñam lii yëpp may wax ni la ñuy daj ak la sëriñam daj wax leen ma ban moo gën a metti te ñii yàlla moo leen jaraloon loolu sëriñam dara tuuruwul jamuñu ko jamuñu ko dóoruñu ko dara dara dara dara dalu ko yàlla moo jaral imaamul buxaari yàlla moo ko jaral mu def ay jéego sonn ci xam-xam tukki dox fu nekk ngir segg xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu dajale ko ci benn téere boo xamante ni tey lu bari ci ay jaamu yàlla buñ ko soxlaa dañuy dellu ci saxiihul imaamul buxaari muslim yàlla moo ko jaraloon moom it mu gàddaay dem fu nekk ngir dajale xadiisu yoonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba kii nii di wax ci vidéo bi tey am nay jaamu yàlla yu muy def xadiis yooyu su Buxaari la nekk ak muslim foofu lañ koy fekk moo jaral ñi def jéego yooyu dem imaam Malik yàlla moo ko jaraloon tey mu bind ab muwatta boo xam ni da cee dajale ay xadiis yoo xamante ni dafa aju suñuy jaamu yàlla ba tey mu am mazhab ñun Sénégal ñu dellu ci mazhabam ba sëriñam boobu sëriñam bii muy wax ni du ko yàlla jaral jaral ko kenn imaam Malik la doon dellu ci ay ahkaam fiqhiya ci fa ñuy jëlee jaamu yàlla ak fiq ترمزي نونو امام احمد نونو nga xamanteni mom yàlla moko jaralon defandu yàlla ak defandu alquran yàlla bi moo ko jaralon ñu tejj ko ay ati at sonal ko ndax rek taxaw ci position ni yàlla waxam waxam la du luñu sak ak mbolé mi borom yi xam-xam suma koy wax duma fi jógee comme du jeex ko wax ji wax la jo xamanteni du wax ju dëgër du wax ju dëgër kep na ko xam dafa bëgg jël am mbindeef tek ko ci yonente yeek sahaba yi nga xam ne ñoo gën ci xéet bi ah lool mom duñ ko walé dañuy taxaw léral ko mu lér nañ ci li nga xamanteni mom moy bop nit ñi comme niñ ko xamé non xamni wax ji du wax ju euh ña defal yalla amna ñu defal yalla la rawfuf wa serigne lu ñu nett rek jambar lu tuba bi ci lo xamne nak histoire sax bindu ko ci lo xamne ñe bindu histoire sax yu si bëri dañ ko wéddi ci ño xamne ñe bindu histoire lu ci bari bindu ñuko dañ ko wéddi lu ci bari ay geewal ñoko netali ay geewal rek ñoko netali du lo xam dañ koy fondé waye ñun lu ñuy wax ni ci alquran la nek ak sunna ak ci lu borom xam-xam depo comme sëriñam ñako gën bari nañ ñe liggéeyal yalla la raw loolu du jeex loo xamante ni ñooñu lañu liggéeyal ak yàlla mun nañ ko misaalee géej mun nañ ko misaalee géej la muy wax la sëriñam liggéey yàlla mun nañ ko misaalee ab puso rek ab puso boo xam ni dañ koo samp ci géej loolu di ci tooy mun nañ ko misaale wala sax mën na bañ àgg foofu wala sax mën na bañ àgg foofu waaw ko wax ji du wax ju dëgër du wax ju wër ab wax la boo xam ne bu ñuy delloo la wallahu alam sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad